من من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak wér ak mucc te di ko sàkku ci yéen di jiital bi di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi kilifa barab bii di sëriñ Abdou Samad moom sëriñ bu Mbàkke di ko teg ci loxal sëriñ Sàmba mi nga xam ni liggéey bi ci ay loxoom la ko teg ñu di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di rafetlu seenub liggéey di ñaan yàlla dimbale leen ci te dëgëral leen ci te kartanal leen ci ba lépp luñ ci yéenee liggéeyal sëriñ bi ñu daje ceeg lu kawe njort tey nag ñu amag ak ab jataay boo xam ni dafa jëm ci waxtaane magi sëriñ bi ñi àndoon ak sëriñ bi yàlla dogal tey ñu tànnoon ci kenn koo xam ni maalam la ku ñépp xam la muy aminu sirri mu bu sëriñ bi muy sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana yaakaar naa buñ ko waxee ñëpp danañ ko xam mu doonoon koo xam ni ku taqoo woon ak sëriñ bi la ci ay barab yu wuute ba sëriñ bi ni mu ñëwee njaareem ba ci ak mujjam bokk ci ñu ci moom yàlla dogal nag ñu ànd tey sëriñ Seexuna Jóob di ab sëtam di doomi sëriñ Xabibu Jóob moom sëriñ Muhammadu Lamin Jóob Dagana mu war mu mu mu war deena mu war a waxtaan ñu ñu moom tey ngir mu waxtaan ak ñun ci sëriñ Mouhamadul Lamine Diop kon xam naa bala ñoo indiwaat suñuy kàddu dañ koy jox muy sëriñ Cheikhouna sëriñ naa nag kon ne xam na ko ci ëtt bi téere yi maamam yi moo koy jàllale muski muskiya sax moo toll ci door a jeex mu doon liggéey bu sell bu aw yoon boo xam ni taalibe yëpp ñu ngi ciy jariñu sëriñ Cheikhouna mi daaray Serigne Saliou jëñ naan got démb rek fa la xëyee fa la fa la jóge ñëw te ku tudd got tudd Serigne Habib yaakaar naa mooy daara ji nga xam ne moom la ko sëriñ Saliou yóbbu woon moom mii fa la gën a jamono ba tey jii muy wéy di ci liggéey boobu yi kon Serigne naa dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog mbokk yi bu ko defee ñu dikk ak yow ci waxtaan wi.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 wa ala alihi wa zahaba wa sahabatihi allazina stafa wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi alwafa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di di la fay ab nuyoo e, ci e, Cheikh Massamba Ka mi nga xam ne yow la ñu seqal jataay bi te di jiital sunu nuyoo boroom kër gi di sunu waajur di sunu kilifa di seex Abdou Samad ibnu seex Suaybu di di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéeneem ci taalibe yi ak ci yoon wi ak ci diine ji lépp mu mottali ko ci barkab Sëriñ Tuuba di nuyu eh, mboolem ñi nga xam ne ñoom la teg ci barab bii di leen liggéeyloo ta mu mel ne buñ ci buñ ci tuddee Baay Sëriñ Sàmb yóbbaale na mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal barab bi ñu nekk fii ci liggéey bu sell bu rafet bi nga xam ne moom la ñuy taxawee di nuyu mbooleem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel assamadiya te di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay waaye di fay ab nuyoo bu sel di delloo nuyoo bu sell eh, sang bi nga xam ne moom lañ bokkal jataay bi tey muy eh, Cheikh Massamba Ka ni ko waxee rek mel ne kon dañ fee teew tey ngir jataayub magi murid yi eh, ngir jàngale mag ñooñu nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikhuna Ahmadul Xadim mel na ne bari na ñu fi jaar lool tey nag kon ñu agsi woon ci Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana ñu war a seq moom jataay bi incha allahu taala ànd ko moom ba keroog muy àgg kon sëñ Masamba ñu delloo la eh, kàddu gi rek nga ñëw ci laaj yi ak mboolem ñu leeral ko ak mbokk yi kon ñoo ngi leen di nuyuwaat rek di leen xamal ni ci biir jataay bi ñu ngi ci ànd ak sëriñ Fallou Amar mom nga xam ni ku ne xam na ko ci xasiida sëriñ Fallou Amar moom sëriñ Saaleh sëriñ Fallou Amar moom sëriñ Moustapha Saaleh jàngkatu xasiida moom it mi ngi ci jataay bi di ñu ci gunge kon sëriñ Seexuna ñoo ngi santaat bu baax di rafetlu kàddu yu sell yi nga yëkkati léegi di la wax di la yaatal di waajal loo xam ni yaakaar naa murid yëpp dinañ ci mën a jariñu ndax dañuy faral a wax ni mbir mu ne soo ko dee def danga koy defloo ku ko man te yow ku ne xam na sa gëstu ci sa maam Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo tax tey ñu tànn la amak ak yow jotaay ngir nga mën cee indi ay leeral yu yaatu diggam ak sëriñ bi xam naa fi ñuy doore rek mooy kan mooy Serigne Mouhamadou Lamine Dagana ab fu mu fu mu ganee jamono ñaari waajuram am njàngam yooyu yëpp boo ko indee ba noppi nag ñu doog a del si num kañ la ñëw ci sëñ bi ak fu mu ko fekk fu ñëwee ci moom xam naa kon laaj bu njëkk bi daal kan mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñaari waajuram fu mu ganee jamono ban dëkk fu mu jànge waaw bisimilah kon sëriñ Cheikhouna ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci laaj bu am solo boobu ci sang boobu nga xam ne moo ñu fi tax a moo ñu fi tax a teew tey di cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana di kenn ci mag ñi àndoon ak euh, cheikhuna Ahmadul Xadim niñ koy faral di waxee rek ñun ñoo leen di tudde ay mag mag ñi àndoon sëriñ bi ñun moom la ñuy wax ndax ñooy sunuy maam waaye ci jamono yooyee nga xam ne ñu ngi ànd ak sëriñ bi booba. Eh, seeni at néew na lool loolu danañ ci gën a ñëwaat ci gën a yaatal incha allah waaye Cheikh Mamadou Amine kenn la ci mag ñooñu le Cheikh Mamadou Amine nag mi ngi gane àdduna dagana fala dëkk ci diggante ñaari waajur yu sell waajuram bu góor mu ngi tudd tafsir Ahmadou Diop eh, Ahmadou Diop ñu gën koo miinee ci tafsir Ahmadou Diop. moom la waajuram tudd tafsir Ahmad Diop ku ñuy wax Babacar moo ko jur Babacar ku ñuy wax euh, euh, tafsir Ahmad Diop Fari tafsir Ahmad Diop Fari moomu ñu gënoon koo xamee ci Ilimaan ma Diop moom ku ñuy wax euh, Malik al moo ko jur Malik al ku ñuy wax Habibullah moo ko jur Habibullah ku ñuy wax maamu maanaam Malik Assani moo ko jur. Malick Assani moom ku ñu wax Mahmoud ñu gën koo xamee ci sëñ Mamour Diop euh, ñoom ñëpp nag ñu xamoon leen ci alquranul karim ak ci xam-xamub diine lislaam siiw gun ca siiwoon ak ràññiku gun ca ràññiku woon rawat na ci alquranul karim ak mbooleem ulum yi ci aju moo waral turu tafsir siiw lool ci ñoom loolu mooy li nga xam ne moo sabab kun ci tudd rek aw turam ñu ñu laafaale ca turu tafsir loolu mooy moo sar ba ni mu ci sët yi ñuy wax tafsir diw tafsir diw fekk foofee la bàyyi ko waajuram mu jigéen mi ngi tudd euh, soxna Xannatu Diop ñu gën koo xëy ñu gën ñu gën koo miine ci maam soxna Diop euh, Xannatu moom la wala fi di wax Anta jëlee naa ci sëñ Mourou Mamoun Niang mu ne sëriñ bi sëñ bi mag bi mas naa wax soxna Anta soxna Anta Balel Buso bokkoon ci njabootu sëñ bi gi nekkoon ci kër gi. ne ko yéen ñi ñuy wax anta ñëpp tur wi dëgg mooy xannatu nday yonent yàlla Moussa alayhi salaam kon Cheikh Mamadou Amine ñaar ñooñu ñoo ko meññi maam soxna Joobit eh, doomi bàyyi la ci waajuru Cheikh Mamadou Amine te mooy tafsir Ahmadu ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk benn famille bi nga xam ne moo leen meññi. at mi mu ganee àdduna itam mooy 1304 ci gàddaay gi bu dee ci at tubaab mooy 1886 eh, moo tollook Euh, xare bi doxoon ci diggante Albouri ak Dammel Samba Lawbe waaw euh, euh, de xare mbëllaxe mag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci histoire yaakaar naa ne xam nañ lool xare boobu ak yaa ko sababoon moom bi muy bind moom moo bindal boppam wax ne maa ngi feeñ ci mujjug Shaaban wala ci njëlbeenu ramadaan daal dina nag wa ala kulli xaalin fa ana ibnul waqaa ak lu mën a xew rek. xare boobu moom ca laa gane àdduna maanaam sama lël moom la tombeel moom la tombeel foofu ci dagana euh, euh, bi nga xamee ne gane na àdduna itam euh, bala ñoo egsiwaat foofu sax dañuy leeral loo xam ne rek xëy na ca lañ waroon a tàmbalee waaye dabaatal ko weesut te mooy moom ay maamam fi ñuy wax mbelloor wax nañ ne foofu lañ bàyyi ko ñëw dagana la ko sabab itam ku ñuy wax euh, euh, Abdul Xaadir Kan ñu gën koo miine ci almaami nga xam ne buurub lislaam la fi woon bokkoon ci ñi fital jihaar doon xeex ci turu lislaam euh, zone yooyu bari nañu fa dugg ci lislaam te moo leen fa dugg maanaam moo leen dugal ci lislaam bi mu xeexee ba agsi foofu ba yàlla may ko ngañaay lu rëy lu yaatu ba dugal ña fa woon ci lislaam ca la ko ca lañ ko xamale ñoom ne ko mënuñoo ñàkk kon ku ñuy tett ci suñu wàllu diine ak ku ñuy xamal suñu diine mu daal di dellu mbelloor fekk fekk amoon na ak ñoom ak xame bu yàgg ñu nekkoon ci loolu mu dellu mbelloor fekk maami Cheikh Mamadou Amin muy ki tuddoon sànq mooy maamu ñaareelam ak euh, euh, mbokkam mu ñuy wax tafsir ndari Diop nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak ñaar la fa jëlee indi leen dagana samp leen fa ñuy jàngale xam-xam yor jàkka ji itam dafa jiite nekk imaam ratib ya loolu bi ñu ko gëstoo wax nañ ne mi ngi toll ci ati cent 1786 1786 ci année yooyu la loolu xew nga xam ne yàlla yàlla dogal na booba ba léegi maanaam man si boobu jógee gut seeni loxo waaw téeméeri at defe naa war na koo mat ak fanweer ba léegi boo fa demee ñoo yore jàkka ja dafa jiite ñoo fay jàngale itam euh, xam-xam sëriñ bi nag loolu dana ci ñëw ci kanam waaye kon Cheikh Mamadou Lamine ci ñaari waajur yooyu ci la gane àdduna kon Eh, bi mu matee dal jàng nee na sama waajur moo ma dalal sama waajur moo ma dalal waaye ginnaaw bi mu daat may jox eh, dongoom bu ñuy wax maanaam eh, Mahmoud Kebe ñu gën koo xamee ci Mamour Kebe nee na moom la ma jox mu di ma jàngal jàngal na ma ab diir ba ma àgg ci sumunu wa ma amwalukum ji suuratu saba ci xisabu xul ma nee suqkum nee na foofu laa tàqalikoo moom sama waajur jëlewaat ma ci moom jox ma beneen dongoom bu ñuy wax sëñ Mahmoud Jenn Mahmoud Jenn euh, Mahmoud waaw Mahmoud Jenn moom la ko njëkk jox moo ko jàngal ba mu su si sumunu ma maam walukum jooju mu jële ko ci moom jox ko ku ñuy wax Mahmoud Mahmoud Jenn Mahmoud Kebe Mahmoud Kebe waaw ñu gën koo xamee sëñ Mamour Kebe moom it ab dongoom la bu daan jàngee ci moom waaye boobu fekkoon na mu bàyyi koo ci daaraam ba dem njandaan ci ginnaaw dagana nee na foofa la ma yóbbu di ma maanaam di ma fa jàngal nee na ci ci ci ci sëñ boobu nag sëñ Mamour Kébé moomu ci laa mokkale alxuraan ci ay loxoom ci diir bu gàtt boo xam ne ci ñaari at walla ñett nee na ci lay toll waaw eh, noonu la ko bindee itam ci ñaari at wala ñett ci laa mokkale alxuraan ci loxoy sëñ Mamour Kébé moomu le eh, bi mu mokkalee alxuraan itam mu nekk fa di toppaat ak di beqi ba nee na beqi na fa ñaari yoon ginnaaw ba nag la fa jógee ngir ay sabab di di dellusiwaat ci waajuram nee na am naa ci yoon wi. ay weer bari naa itam ay jaar-jaar lool ci diggante boobu nga xam ne nee na booba bu fekkonte ne sama mokkal wérut kon danaa fët ndax booba daanaka kenn daawu ma nemmiku ak di ma loo alxuraan ak di di saytu sama njàngu alxaan ba xam fu mu mel nu mu toll ak nu mu mel bi ma egsee ci sama waajur nag sama waajur tàmbali moom itam di ma jàngalaat may jàng ci moom di tari di bind di ko wan ba bettuwaat fa weneen yoon dégg muy ñetti yoon kon loolu lépp nee na ay atam booba soriwut fukki at jàpp fukki ak benn wala fukki ñaar waaw loolu daal mooy Cheikh Mamadou Amine ak ganeem àdduna ak ay waajuram ak njàngum alxuraanam bu dee njàngum xam-xam nag lépp moom ci kër sëriñ bi fi la ko defee kon sëñ Masamba ñu yemani foofu ba kàddu gi del incha allah sëriñ Cheikhouna yaakaar naa ni leer na leer na naññi waxtaan wi am na solo lool li nga leeral ci sëriñ Mouhamadou Lamine leer na wax nga ak waajuram ak fi mu bokk gi ni mu soree yooyu yëpp indi nga ko ak fi ñu jugee ba ni ñëwee dagana ak moom it am njàngam fi mu jàngee sëñ bàyyam wax nga ni bàyyi moo ko tàmbalil kon bàyyam ab jàngalekat la woon mu ko tàmbalil ab diir boole ko eh, ñaari dongaam sëñ mu mujjee ci sëñ eh, Mouhamad sëñ Mahmoud Kebe moomu comme ni nga ko leerale léegi ba ni mu dellusiwaatee foofa beqi na fa ñaari yoon ba mu dellusiwaatee beqi fa aw yoon Euh, loolu muy lu am solo mm, di doon doon boo xam ne ak ak at yi nga xam ne boobu at yi kon xam naa dañuy ñëw ci euh, beneen laaj beneen laaj bi nag day jëm ci sëriñ Mouhamadul Lamine Diop Dagana lan moo ko booleek sëriñ bi moom ci jëm boppam moo amoon ak bëgg ba dem ci sëñ bi wala sëriñ bi dafa xamante woon ak baayam wala maamam batax loolu yóbbu ko ci sëñ bi ak nu mu dikkee ci sëñ bi daal ak nu mu xamee sëñ bi ba ñëw ci moom ah, loolu it ah, waaw boobu moom moom ok jërëjëf Cheikh Massamba ci laajub ñaareel bu am solo boobu mu mel ni nga ko laajee itam eh, mu di laajeen wu am solo wu rafet ndax Cheikh Mamadou Lamine diggam ak Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu naka la ñëwee ci moom ndax waajuram moo ko yëkkati jëbbal ko ko jox ko ko wala moom moo am xemmemteefam ñëw ci sëriñ bi ñaar yooyu yëpp lu ci ne daje na ci te leer incha allah euh, dañuy tàmbalee rek ci xamle ne sëñ tafsir ahmadu moom dafa am lante woon ak sëñ Mamoor Anta Sali amoon nañ ak xame bu doxoon seen diggante waaye mel na ne euh, relation boobu li ci feeñ ak liñ ci xam taxut mu bari day mel ne relation daal ci digganteem ak sëriñ bi ci la gën a fese moom moom moom moom sëñ Tafsir Ahmadu sëñ Moussa Ka ju na ko wane na ne wóllëreem la woon wane na ne sëñ bi daa daana ko seeti moom it ñëwoon na Mbàkke moom it ñëwoon na Mbàkke ziar sëriñ bi euh, sëñ bi nag dem maanaam lim dem Mauritanie day mel ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute am na ñu ne ñetti yoon la am na ñu ne ñeenti yoon la waaye ñetti yoon yi moom wér na moom yoon yooyu nga xam ne moom la daan dem Mauritanie nag xam nañ ne Dagana mooy yoon wi. saabu bu masaana ñëw kër waajuram fa la daan dal kër sin tafsir ahmadu saabu bu masaana ñëw ci yoon yooyu yëpp këram lay dal nee na euh, yoonu mujj wi rek la fa dalut mooy bi nga xamee ne tubaab yi ñoo koy exilé muy génnug ñaareel bi ñu war ko yóbbu Mauritanie boobu tubaab yi ñoo ko fa indi mu nekk ci ay loxo nga xam ne kër ku ñuy wax mbaariyaan jaw fa la daloon moom it dafa daan liggéeyee ci ci tubaab bi am na daal poste bu mu amee woon ci ñoom nga xam ne ba tey ak njabootam ña nga fa foofu la sëriñ bi daloon waaye Cheikh Mamadou Amine ci biir ay mbindam nee na teewul la fay dal dal daf fa jóge di doxantu di egg sama waajur di ko nemmiku ci kër gi euh, yoon woowu nag mooy yoon wi nga xamee ne ci la ko jébbale seriñ bi jébbalaale ko ak njabootam ginnaaw bu mu jébbaloo moom ci boppam ndax moom moo ko bind nee na sama waajur xaritu sëriñ bi la woon waaye itam ab taalibeem la nga xam ne kon bi mu koy jébbal Cheikh Mamadou Amine ak njaboot gi fekk na moom mu jaayante moom ba noppi. boo demee ci minanul baaxil xadim eh, sëñ Bachiru mu ngi ciy leeral lu am solo di wane ne Cheikh Mamadou Amin ci boppam nee na mokk nett li nee na diirub li sëriñ bi nekk Kër Mbaariyaan Jaw ndax yoon woowu sëriñ bi yàggul dagana juróomi juróomi fan rek la fa am dal di jéggi dex gi jàll waaye diirub li mu nekk foofu nee na man la sama waajur daan yan maanaam maanaam añ bi ma ko daan yóbbul bi waaw nee na añ bi man la ko sama waajur daan yan ma daan fekk sëriñ bi ca fam dal di ko di ko yóbbul ba nett li ci histoire yu yéeme yi ak ñi tubaab yi doon naxe donga yi ba bàyyi leen fa ak yu mel noonu yu gudd la loolu loolu mi koy leeral nee na euh, sama waajur daan ma koy jébbal ndax moom Cheikh euh, Sëriñ Tafsir Ahmadou yàlla daa dogal ku teel a xam sëriñ bi la ku teel xam sëriñ bi la xëy na lu yàlla def ci moom la dañ ci nettali sax di wax ne am na ci soxna yi ku commencé wax ne ko ñun de sa digg ak jëmm ji dañoo yéem ndax seetlu nañ ne kilifa ak diine gu ne am lente nga ak moom ku ne itam ñëw na fi waaye ku fi ñëw wàllu service am ñun nga koy booleel yow sa der bii doo ko wàcc dégg la nga daan ne ak lan la xamee woon rek ci ngay nekk waaye kii moom seetlu na ne bu fi duggee dañoo jël la ne dangay wàcc sa der bii waaye daa mel ne doo ci xajal kenn te sa kaala gi sa ndigg li nga koy takk ba keroog muy génn kër gi waaye lam tontu dane ko kii de li ma xam ci moom bu ngeen ko xamoon ci moom def ne man soxna si daal na ko li nga xam ci moom de xamuñ ko ci waaye dinañ def ne yow dinañ def ne yow non non loolu bokk na ci histoire bi nga xam ne dox na ci diggante sëñ Tafsir Ahmadu ak sëriñ bi nee na mu daal di ma koy jébbal jébbalaale ko mboolem ak njabootam itam bi nga ko jébbalee njabootam gépp itam am fa juróomi fan daal di jàll dem Mauritanie nee na bi muy dem Mauritanie itam dañu fa bàyyi ndax sabab yi ginnaaw mi ngi ci ay loxo kon mënut a yóbbaale waaw ñoo xam ne ant maanaam antoon ak ñoom génn ñaareel bi itam fan ko jëmee it taxut mu xam fa. saxagul benn barab daal ba mu àggee it taxut taxut mu wax ne ñoom nañ nañ daal di ñëw nee na ñu des fa nag ñu des dagana sëñ bi jàll ma nekkaat ci sama wàllum alxuraan dégg nga ñu ñu yebalaat ma ci kenn ci kaa ngi ne foofa may jàng ci moom di continuer di tari ak di beqi nga xam ne kon yàgg na ci toolu bu alxuraan lool diggante fukki at jàpp fukki at ak benn ba bi muy am ba bi muy am fukki at ak juróom-ñaar loolu lépp mu njàngum alxuraan ci di ko toppaat ak di ko gëstu yooyu mel noonu. nee na nag euh, sëriñ bi mi ngi ñëw dagana ñaar fukki fan ak lu topp ci weeru gàmm xam nga histoire bi muy génne daarul mën naan di ñëw dagana daa gàmm ba noppi dégg nga xam ne gàmm na ba noppi bañ teg ci ay fan nga xam ñaar ak nangam la na sama waajur jébbal ma ko nag mu daal di jàll ma nekk ci loolu loolu ma nekkoon sëñ bi am fa am at dégg nga ba mu fa amee at fekk sa am na sama mag ju ñuy wax sëñ Cheikh Diop dagana ñu gën ko maanaam turam dëgg mooy Moustapha loolu lépp ci mbindam la nee na boobu mi ngi woon mbaakol fekki wut sax sa nelaw sama waajur ma daal di dem fekk ko fa am faak moom ah, am at ba ma fa amee moom am at nag laa dégg ñu ne sëriñ bi mi ngi ñuy laaj di wax ne ana njabootu tafsir ahmadu gi ma joxoon ana fu ne ak ci lu nekk bi ma déggee loolu nag laa ne sama mag maa ngi dem ci sëñ ba nga xam ne kon diggam ak sëñ bi waajuram moo ko njëkk a jébbal waaye moom it moo am volontaire di nga am xemmemteef yëg na sëñ baa ngi koy laaj mu daal di jóg demal boppam mi ngi tolloog euh, mille mille neuf cent quatre mille neuf cent quatre bi sëñ bi àggee Mauritanie ca déwén si rek la xumaag it la ko fekk euh, nee na bi ma egsee waaw ok waaw bisimilah. ma am lu ma la laaj xam naa sëñ naa ci dikkug sëñ bi euh, yoon yi nga xam ni ñëw na ko dagana ndax daa mel ni damay dégg ñu ne. am na ci njabootu sam ma bàyyi sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana jooji sëñ tafsir kenn ci doomam yi ko woon sëriñ bi waaw loolu it bëggoon naa nga dikkal ñu ci waaw waaw waaw bu ko defee nga nga nga wéyaleel ci ci foofu nga toll. waaw kay jërëjëf euh, Cheikh Massamba euh, loolu lu wér la ki ñu tudd aw turam sànq te mooy sëñ Cheikh Diop Dagana. nga xam ne mooy taawu waajuram moo ñu maanaam mooy seen taaw mooy seen mag ñoom ñëpp mooy ki nga xam ne yàlla dafa dogal dañoo wax ne dafa nuru woon sëñ bi ci jëmm ak ci melokaan ba ba yéemu lool loolu it li ko sabab mooy yoon yooyu nga xam ne moom lañ doon junj sànq di wax ne moom la sëñ bi daan dem Mauritanie te daan dal kër waajuram da ci am yoon woo xam ni dafa sorewut ak ganek addunaam ndax sëñ bi bu masaana ñëw ñaare li ci ëpp guddi lay egsi te bu ñëwee du fëgg kenn day lal ci ëtt bi rek nekk ci ay jaamu yàllaam bi muy ñëw ci yoon woowu nag eh, su ma juumul mooy tolloog boo demee ci Irwa 1900 1883 xam nga ci la yu woote yoon wi ci ci diggante boobu xam nga génn na fi ab génn boo xam ne dem na fa Mauritanie wëndeelu ci réew mi fu ne dégg nga dem fi fu bari yoon woowu nag moo tolloog gan àdduna ak sëñ Cheikh Diop Dagana bi muy jaar foofu dañoo wax ne waajuram mi ngi ànd ak moom. daa tollu fenn bi mu génnee ci guddi gi jëm ci wana wi wala mu am soxla daal ci bitti daal di yem ci sëñ bi taxawaay bi ak weexaay bi lëndamaay bi nga xam nga booba làmp xewul te bàyyi ko fi bi muy fatu loolu nag tax mu mel ne lu xaw a yóbbu fitam waaw bi mu àdduna nag mu jël sëñ bi nga xam ne loolu mbooleem njabootuk sëñ bi ñëpp lu lu lu maanaam daanañ ko seere jëre naa ci sama waajur suñu abi bu mu ne soxna soxna soxna eh, soxna Xadi eh, Mbàkke waajuru Sëñ seex mu Sëñ Saaliw moo ko nett li ne ko soxna Musli moom Sëñ Tuubaa bis nee na ma kaay gunge ma ñu ziyaar ji Sëñ Cheikh maanaam ma ziyaar ji Sëñ Cheikh Jóob Dagana bi ñu dem ci yoon yi mun ne ko kii ñu jëm nag bu ñu àggee na nga ko seetlu bu baax dégg ndax ku nuroog sëñ bi la ci jëmm jaag tolluwaay baag melokaan waag doxin waag toogin wa daan ne ko la ko waral nag laa la bëgg a nettali daal koy nettali xis sa boobu xis sa mu dul yéeme loo xam ne noonu la noonu la noon la noonu la noonu la amee euh, kon ngir bañ a guddal rek dañ ci yem foofu bu ko defee Cheikh Mamadou Lamine kon xumaag la fekk sëriñ bi bi mu egsee nee na ba nuyoog moom nee na sëriñ bi daa bëgg nee na daa bëgg ba ko gis xam ne bëgg na daan na ko Mouhamadou Lamine ñëw nga dikk nga nee na ma ne ko waaw mu ne ma ana foo ne woon ak la fa bàyyi woon nee na ma leeral ko fa ma ne woon ak la ma fa bàyyi woon ak wàllu njàng ma ak ci aju nee na mu ne ma ana nooy def nag léegi ginnaaw bi nga ma gisee da ngay dellu wala da toog ma ne ko man kay noppi na ma am fenn yitte ginnaaw bi ma la gisee nee na mu ne ma zalika afdal loolu de moo gën nee na ginnaaw loolu nag la ku ñuy wax suñu Saïd dëkk Chérif ci wetu Njaasaan moom la woo ne dalal ko kem ni ñuy def gan kuy soog a rek mu daal di dem dalal ko ci ginnaaw loolu nee na mu woo suñ baara xarifaal daal ne ko dama bëgg nga nattul ma Mouhamadul Amin moomu alxuraanam nu mel ak mbindam ba xam rafet na wala nee na daal damay jox euh, alliwa akub kaamil ma tàmbali di tari ci suñ baara xarifaal di bind itam di ko wan ba mu leer ko ne mokkal gi wér na mbind mi itam wow na te rafet na mu ñëw xamal ko ko nee na sëñ bi bëgg ci lool daal di woo ku ñuy wax sëñ Mor Mbacke Touré di doomi Balla Maam Touré ca Lappe nee na ne ko. dama bëgg nga dooral ko njàngoom xam-xam eh, am na nett luy wax ne sëriñ bi moo ko dooral njàngoom xam-xam waaye nag liñ fekk ci mbindam mooy nee na sëñ Mor Mbàkke moo ko dooral njàngoom xam loolu nag dàqonte wut ak sëriñ bi jàngal ko ndax am nañ ci ay firnde yu leer sëñ Moustapha Lo mu sëñ Daam Abdourahmane Lo nee na sëñ Basiiru ci boppam moo ne ko Mawaahibul Quddus na nga dem sëñ Modu Lamin Jóob muy muqaddamatu Ibnul eh, Awfi ci laa tàmbaleeg moom Eh, nee na mu jàngal ma téere boobu teg ci ibnu achir teg ci saadat tullaab teg ci eh, risala teg ci milhatul i'rab teg ci laamiyatul afaal teg ci teg ci muqaddamatul kokki teg ci eh, muqaddamatu ibnu buuna teg ci alfiya ibnu malik ba mu xaaj téere yooyu yëpp nee na ci suñu ñoor mbàkki Touré moomu laa ko jànge nee nag bi ñu àggee ci 1900 waaw mi mi 1905 ci la sëriñ bi yeewi Sëriñ Mor Mbàkke Touré mu daal dellu ci la ko wàccee daal nee mu daal dem nee na ba mu demee nee na diggante boobu nag amatuma jàngalekat bu fixé wu dama daan def ku ma gis tam leer ma ne ab jàngalekat la rek ma dégg ko sama téere mu jàngal ma nga xam ne ataallamu min amrin wa min zeydin ku ma jot rek jàng ci moom kon xëy na ci diggante boobu ginnaaw sëñ bi nee nañ toll na jamono yoo xam ne moo féete woon majlis bi mën naa am diggante boobu jàng na ci ci moom ca déwén sa nag dégg nga di maanaam 1900 euh, li ñu doon wax sànq 1906 la ca déwén sa de 1907 nga xam ne kon menn at rek moo ci la sëñ bi ñàkkee ab jàngalekat foofu xam ne moo daan jàngaleel boppam ca déwén sa de 1907 nee na ban ci amee ay weer doonoon itam euh, ñaar fukki fan waa fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm doonoon guddik alxames ci la sëñ bàyyi ko Mauritanie daal di jëm eh, jo maanaam jolof jolof waaw nee na bi ñu ñëwee jolof nag foofu la sëriñ bi sampe ñetti boroomi xam-xam yu dëkk jëmmoo ñoo xam ne ñoom ñëpp turu Mouhamadul Amin la ñuy wuyoo samp leen fa ñuy jàngale xam-xam kin ci tuddoon sànq te mooy sëñ Baara Xarifaal Mouhamadou Lamine Gaye la tudd ci la bokk sëñ Baara Faati Mbóoj Mouhamadou Lamine Gaye la tudd mooy ñaareel ki ku ñetteel ki di sëñ Mouhamadou Lamine Gaye firdawsi maanaam maanaam firdawsi ñett ñooñu la ñooy ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi maanaam samp ndax ni ñu koy faral di waxee kër sëñ bi euh, tur yi dadaan dadaan bari maanaam da ngay gis wenn tur maanaam mu am fi ay yoon bari fi lool Mouhamadou Lamine dañoo bari woon moo tax kenn ko ne ñu nu ñu lay dàkkantale ngir ñu mën laa xam moo waral gis nga Baara Faati Mbooj la ñuy wax Baara Xarifaal kee ñuy wax Firdawsi moom mii ñu di ko wax Mouhamadou Lamine Dagana muy wéy nee na nag ci ñetti borom xam yi nag ci laa yeggalee samam njàng day mel ne itam ni mu junjee ci biiri mbindam ci yéen jolof googu fa la defee li ñuy tuddee dëgg dëgg tarbiya ndax nee na foofu moom dañoo boole woon jàng ak liggéey jàng ak liggéey lañ boole woon eh, liggéey yi nga xam ne moom la ñuy ci kër gi ci wàllu buub ak root ak sëriñ bi itam di soppaxandiku ci nun laa mu xaalifa la foo fii amrina am noonu la ko waxee amul kenn koo xam dana juyoo moom ci dara ci ci ci sun biir loolu itam nee na eh, ñoom ñooñu léeg-léeg ñaar ci ñoom daanañ génn mu des kenn léeg kenn ka génn mu des ñaar ña waaye ñoom ñett ñëpp daawun faral di génnandoo di génnandoo waa nga xam ne kon foofu la foofu la foofu la am njàngum xam-xamam yegge ba ni nga xamee ne noonu la fa waaw ci ci jolof ci jolof kon étape boobu dañ koy tëj foofu yamale ko foofu ba ni nga xamee ne kon noonu la war a ñëwee ci état bu njaareem mu war a génn nag ci wàllum njàngom xam-xamam dugg ci yeneen i liggéey incha allah. waa kay sëñ Cheikhouna macha allah kàddu yi leer na am na solo lool lool yaakaar naa fi mu ne képp kuy dégg dinga nga yaa ngi dégg loo xam ne nii xam-xam bu leer la taarix bu set wecc boo xam ni kenn du ko nattable xam naa it nag am na ci lu ma bëggoon bala ñoo génn foofu euh, loo ñu leeralaatul tuuti ci waajuram ñu suñ tafsir ndax damay faral dégg ni ak mujj mujjanteem mujj gisam ak sëriñ bi daa mel ni sëriñ bi am na ay woy yu moom yooyu yëpp xam naa boo ñu ko indilewaatoon dina ci am solo. waaw kay jërëjëf Cheikh Massamba xam naa xel day fattu rek waaye loolu ban ko waree leeral suñu xel a ci génn bi ma lay joxaat micro bi léegi nii la sama xel dem te mooy bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Tafsir Ahmadou ak sëriñ bi wax nañu ne euh, bi nga xamee ne seen mujjug gisee sëriñ bindoon na ay abyaat jëme ko ci moom abyaat yooyu moo tàmbalee ci alkalkalul yawma minni saara mahjuba kërhan bi tawdii xilli ahmadan juuba in aaba aw xaaba xatta saara za boodin falan yazaala ladayna awdu mahbuuba lakin alimtu bi anna allaha malikana mata yurid qataa amrin kaana majbuuba fahab lahu yaa ilahi nayla matlabihi waftax lahu kulla baabin kaana mahjuuba mu mel ne li muy junj ci bayit yi rek mooy sama xol tey am na tuuti naqar am na daal tiis wu ci nekk te dara waralu ko lu dul tàggoo gi may tàggoo sama xarit bii di sama soppe di Ahmadou Diop daal ne bu fekkee yàlla dogal na mu fàddu moom wala man ma fàddu ba gisanteetun teewut ku ko soppulaa ci sama xol daal ne waaye nag xam naa ne rek yàlla moom bu nam bu nammee yemale ab diggante ci ci ci ci ci waxtu wala ci barab foofu rek la yam du ko weesu loolu taxut dat bi datub ab yaat yi feeñ waaye ñi wax ne seen mujjug dund la foofu lañ ko sukkandikoo xam ne kon day mel ne sëñ mi ngi junj ne yoon wi la ñuy mujj gisante ndax da da cee wax ne yàlla moom fu mu nama yemale mbir rek foofu la yem dégg nga daal ne waaye nag sama borom maa ngi lay ñaan dégg nga nga may ko mboolem lu mu bëgg te di ko sàkku ci yow te nga ubbil ko bépp buntu bi yiw bu tëju woon loolu ay abyaat la yoo xam ne sëriñ bi defoon na ko ci eh, sëñ tafsir ahmadu am na nañu wax ne itam sëñ tafsir ahmadu tontu woon na ko ci ay abyaat waaye loolu moom ba tey bët day mel ne tegeegu ci ci maanaam ci ci njaboot gi Eh, macha allah sëñ Cheikhouna loolu nga leeralaat ci suñ tafsir Ahmadu am na solo lool muy bayit yooyu xam naa kon ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy ñëw ci sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana jamono yi nga xamee ni it eh, nekk na jolof ak sëriñ bi ndax daan jàng xam-xam da ko boole woon ak di bind di bind di njàngum xam-xam képp la féetewoo woon wala. Euh, daan na bindal sëriñ bi lu mel ni ay kaamil wala yu demee noonu ak di ko yëkkatil xasida ba nim ñëwee njaarim xam naa loolu lépp dañ koy boolewaale def ko ab laaj euh, ba tey it am na xisa bu muy dégg it ci muxadamatul xidma muxadamatul xidma boobu it xam naa it boo ñu ci mënee indi dikkalaatal ak yu mel ak yooyu yëpp rek waaw incha allah. ok jërëjëf Cheikh Massamba waaw kon xam naa dañuy ñëw rek ci état bu njaareem bi bala ñu cee ñëw it xisa boobu nga mujj wax. da di lu am solo loo xam ne eh, Serigne Saliou Touré ci boppam moom ma ko nettali yàlla nag suñu borom doolee sàmm te ko ak wér ci barkeb Serigne bi moom xam nga bokk na ci ñi Cheikh Mamadou Lamine jàngal ci moom la jàngee li ëpp ci am njàngum xam-xamam bu dul lépp la ca ëpp ndax yàgg na fa lool nee na Cheikh Mamadou Lamine ci boppam moo ko nettali ne ko mas na ma toog di jàng muqaddamatul xitma di ko biral ca kaw. xëy na mën naa am ni mu waxee ne xissa bi ñëwee nekku doon di ko yëkkati di ñàng waaye nee na da ko doon da ko doon biral nee na booba itam sama néeg dafa dend ak néeg sëñ bi sëñ Saliou bi mu waxee ba loolu ba noppi dafa wax ne damaa jort ne ci yéen lay war a doon waaye jàpp ma ne njaayam la nga xam ne kon demel laaj bi ñëw na ci waxtoom mu ne damaa jàpp ne ci yéen lay war a doon waaye wurtu nekk njaareem ndeke li may jàng lépp sëñ baag may déglu nee ba yàgg may di jàng di jàng yàgg nga maanaam ngëmmentu dikkal ma ma daal di tàmbalee nelaw ma nekkee ci nelaw yi sëñ bi ñëw daal di may yee daal ak tànkam ne ma da ngay nelaw ma daal di jóg toog mu daal delluwaat ci néegam nee na nes tuut ma ñëw ci moom ne naa eh, eh, da dafa am dafa am lu ma gis ci ay nelaw bëggoon koo nettali su ma ci amee ndigal woowu nga xam ne yaa ngi ñëw di ma yee nee na mu ne ma bismillah am nga ci ndigal nee na nee na mu ne ko dama dama bi ma bi ma jàngee muqaddamatul xidma ba gëmmentu noonu tëdd dama gis damaa gént gis ci ay nelaw maanaam waliyu woo xam ne ay noonam dañ ko wër waliyu woo xam ne mi ngi sol lu weex tàll ay noonam ay noonam wër ko mel na lu koy sonal mel na lu koy sonal nee na man ma xaacu wuti noon ya ngi ngir bëgg a xeex ak ñoom ak ray leen foofu ci waxtu woowu tembe ci ma yëngal sa tànk bi ne ma ndax da nelaw nee na mu ne man wax nga dëgg de ndaxam bi ngay jàng ba toll foofu day noonu la ma noon noonu la ma noon yi jekkoo borom moo la ko doon wan borom moo la ko doon wan loolu sëñ Saliou moo ma ko nettali euh, kon niñ ko junjee sànq njàngum xam kon jeexoon na ci ci yéen jolof nee na leeral na ci itam ñaari sanc ya nga xam ne moom la fa moom la moom la fa sëñ bi sanc bi mu egsee nee na ab sancam bu njëkk Daaru Rahman la ko tudde am fa ñaari at sancaat beneen sanc tudd ko daarul quddus diggante ñaari sanc yi kilomètre wala kilomètre ak dara rek ci lay toll nee na ñi nee na kër gu ne am na fa ñaari at muy ñi muy muy maanaam muy ñeenti at nee na eh, ci atum 1912 dégg nga bi nu amee ca weeru tamxarit wa ñaar fukki fan ak ñett ca lañ bàyyikoo nag ca yéen wuti njaareem nee na itam bisub gaaw la woon nee na itam am nañ ci yoonu ñaari fan bi nu egsee itam fi nu dalal sëñ beeg dégg nga loolu lépp leeral na ko ci biir Irwa waaye nee na bi nu egsee njaareem nag ca la ma génne ci mbooleem la ma ne woon ci mboolem maraaxil yi weesu yëpp ci wàllum njàngoom xam-xam yee ci maanaam yee aju yee aju nee na lim ñu njëkk a eh, defloo nag mooy dañoo njëkk a seet nattuwaat ñu ci sunu mbind ba xam nu mel bim ñu xoolee gis ne nee na fa waja danaa min fursaaniha mu fekk ñu ñu bokk ci jàmbaar. maanaam bind kat yi waaw nee na mu xool mbind mu rafet loolu mu yéem ko daal ne daal ñuy génne ca mboolem lañ ñëwoon daal ñuy féetale wàllum mbindum alxuraan dañu bind loo alxuraan ci ci maanaam kaamil yi nee na ñu féetewoo rek di bind alxuraan nga xam ne suñu liggéey ci kër gi weesuwut bind alxuraan waxtu wu nekk ñu ngi bind léeg-léeg day woo kenn nit ne ko bindal ma ab kaamil léeg-léeg ñaari nit lay woo léeg-léeg ñett léeg ñeent léeg-léeg juróom boole leen benn kaamil léeg juróom benn mu ne fàttalikuma nag at moo xam ne juróom-ñaar lañu woon waaye fàttaliku naa nag at moo xam ne juróom-ñett nit lañ woon kenn ku ne bind juróom-ñaari isib ak nisif nee na nga xam ne du ñu am wenn waxtu woo xam nekkuñ ci di bind ci la nett nettalee sax xissa bu yéema boobu mu ne bis dañoo woo fekk booba weeru koor wi ñu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom-benn nga xam ne bu weer wi kaamilee ñeenti fan moo ci des bu kaamilut ñett bu ñu ñëwee ñu ngi fekk mu yor kayit gu bari ci loxoom mu nañu ndax xam ngeen lu ma leen doye ñu ne ko taxagut ñu xam ko de mu ne kaamil de laa bëgg ngeen bindal ma ko ci kayit gii waaye bu leen ma wax mukk ne ma terutel weeru korite yi mi ngi nii lu dul ngeen ne ma kaamil baa ngi nii daal ne ndax da ngeen ko def nee ñu ne ko waaw mu ne ndax da ngeen ko def baa moo ay waxam noonu ba muy yoon noonu noonu noonu ñu miine ay waxam rek nee ñu ne ko waaw bismillah jàpp leen ñu daal di jël kayit gi mu daal di wëlbatiku fàtt dugg ci biir nee na ñu daal di seddoo kayit ya kenn ku ci nekk xam na li mu isib yi muy bind nu mu war a toll kenn ko ci nekk xam na baat bi mu war a yam ak bi moroomam war a tàmbalee lépp lijjanti nañ ko ci jataay ba daal di tasaaroo nag ci yoor yoorub maanaam ñaar fukki fan ak juróom boobu ci weeru euh, koor nee na waaye kaamil bi nee na bi ñu demee di nga ñaari isib ci bis bi maas ko ci bis bi gis ku ñaari isib dégg nga bu xëyee maas maas ko maas ko nee na ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent ca zawal ba tisbaar di jot ci lañ teg kaamil bi ci loxol sëñ bi nee na kaamil bi li ci yéeme li ci gën a yéeme mooy booy xool da ngay jàpp ne benn loxo rek moo ko bind ndax amu ci benn bind bu gën a dijji moroom ja wala mu gën a sew moroom ja xalima gi ñoo ñoo ñoo nuroo ñoo tolloo amu ci it benn paas boo xam ne sa morom daa bind ba yàgg fa mu waroon a yem dégg nga mu yem fe nga xam ne paas ba ca topp bind ko loola weex noonu loolu lépp amu ci kenn ku ci nekk da sës fa sa moroom war a tàmbalee nee na sëriñ bi di xool kaamil bi di yéemu di ko xool di yéemu ba yàgg mu ne ndax mas ngeen a dégg wala ngeen mas a gis ku bind ab kaamil wala mu bind lu ko ci ñetti fan nee na ñu ne ko déedéet nee na mu daal di sant yàlla daal di ne alamin daal ci teg ne anni laa udiu amala amilin minkum man de du seen jëf nee na loolu la leen wax daal di leen di ñaanal ñu daal tasaaroo ci bëccëg boobu mel na ne kon waxtu wi jot na xam naa ñu daal di waajal julli gi rek mbokk yi kon ñoo ngi dellusiwaat ak yéen ci seen seen Samadiyya télé bo sëñ Abdou Samad comme ni ngeen ko waxee woon léegi rek di ci àndaat ak yéen di xam ne dañoo nekkoon léegi ci jullik timis yi ñu ko sëriñ bi jàngalee ni di leen fexe ba julli di yàq te bu ko dara yàq kon loolu rek dañuy ci lañ nekkoon ñu wéyalewaat ak sëriñ Cheikhouna Diop moom sëriñ Abibu Diop ñu leen di fàttali ba tey moom lañ àndal ci euh, waxtaan wi waxtaani sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñi ngi tolloon nag sëriñ bi dikkee njaareem euh, ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu nekkoon di leeral ni nga xam ni noon la ko sëriñ bi soppilee ab liggéeyam bi mu ñëwee njaarim ci loolu lañ nekkoon kon sëriñ naa dañuy lay joxaat kàddu gi mbokk yaa ngi lay déglu di taataan bu baax a baax ndax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana yaakaar naa moom kenn du ko présenté kenn ñax ñëpp ko xam ko xam ne moom léppam sëriñ bi la waaye ci biir loolu it ñu di la laajaale ndax moom jiir bi mu nekkee njaareem ci sëriñ bi it ndax moom mas naa génnaat nekk fenn wala sëriñ bi daan na ko yónni ci yenn barab wala moom daal sëriñ bi daa taxoon ak moom rek comme niñ ko xamee ba tey téere boobu nga xam ne nubsatul mubaaraka nub sa boobu bëgg nañ it nga dikkal ñu ci ndax ci kanamu sëriñ bi la ko bindee lii yëpp wax ak fum mu la wala fan ak waaw lii yëpp bëgg nañ nga dikkal ñu ci incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullah ok jërëjëf euh, Cheikh Massamba ñuy nuyuwaat mbokk yi rek di fas yéene kon sofaat suñuy kàddu incha allah. fa nga xamee ne fa lañ yemoon mu mel na kon ñoo ngi tolloon ci bi nga xamee ne ñëw nañ njaareem sëriñ bi ñëw na njaareem ba soppiloon leen ab liggéey féetale leen mbindum alxuraan mi euh, bi nu egsee njaareem itam mel na ne lu ci nekk étape la ndax leeral na wane ne natt na ko ci wàllu mbind mu rafet la ko mu féetale ko mbindum alxuraan mi loolu mel na ne ay jamono la waaye itam moo bindaat leeral ne nattu na ma ci wàllu nodd ginnaaw ba nga xamee nodd nodd noddkat ba dafa faatu ma rafetle ko mu daal di féetale jàkka ji mu ne noddal naa ko ay at yoo xam ne dégg nga ma maa koy liqaamal waaw ci maanaam ci jàkka ji loolu ba tey leeral na nga xam loolu it ba tey mel na ne kon mën naa am bokkut ak état mbind ma wala lu lu maanaam ba tey lu mën a ànd la itam euh, noonu ma ko daan bindalee alxuraan itam noonu la ko daan bindalee xasida yi xasida yi itam daana ko bindal daana daana maas itam loolu itam ba tey bokk na ci li nga xam ne maanaam euh, leeral na ko mag ñi nga xam ne ñoo àndoon moom wax nañ ko ne bokk na ci lim leen wax daana ko euh, loo itam ci féetale ko muy nemmiku gan ñi ak leen dalal gan ñi ñëw ci kër gi muy kilifa yi kilifa yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci Mauritanie ñiy bàyyi ko Mauritanie muy naari gànnaar yi ba loolu moo taxoon naari gànnaaru gànnaar yi wutal ko laqab daan ko mu mudiful bayaadin mudiful bayaadin ñoom moom lañ ko daan wooyee moom moom moom Cheikh Mamadou Lamine euh, mu nga xam ne diggante boobu nett na ci lu bari waaye nag fi ko sëriñ bi daan yónni loolu moom mel na ne bariwut lu daan am muy génn dëkk ba di dem ci ay barab loolu moom bariwutoon lu daa takkoo woon ak moom di ko liggéeyloo ci ay mbiri biiram eh, am na daal yooyu benn wenn yoon woo xam ne fàttaliku nañ ko te loolu maanaam bi ñu nekkee eh, Ceyeen la wala wala Mauritanie ñëw na ci irwaaw ci ci irwaaw Nadim xissa boo xam ne da ko yónni woon Dagana bi mu ñëwee itam nee na mu daal di eh, dem ca kër ga nee na yendu fa yendu ci néeg waajuram bu jigéen am na naaru gànnaar bu mu tudd teewlootuma tur wa ne ñoo fa bokk yenn keroog daal moom sax euh, dafa am diw sàngam moom gane si woon bi mu yégee ne maa ngi dëkk bi mu daal di bàyyi ngan nga ak lam ne woon lépp ñëw fekk ma sama néeg waajuru jigéen bokk ak man yendu nee di ma laaj sëñ bi nee di laaj sëñ bi ana num ana num def dégg nga euh, laajug cofeel nee na ma xam ne daa bëgg ku ko waxtaanal sëñ bi fekk boobu maa ngi ngànnaayoo woon masalikul jinaan ma yëkkati ko rek teg ci loxoom waaye nee na ci këppoo ci yor-yor bi ba ci ngoon gi siggiwul moom naar bi nee na nee na bi may delloo téere bi daal genn kàddu la ma wax sëriñ bi day maanaam sunu borom baax yi ñu ko baaxee ci jamono jii day tekki ne yée maanaam maanaam jamono ji yiwu rëy moo ci nekk baax gi ñu sëñ baaxee ci jamono jii dégg nga loolu li muy tekki mooy jamono ji ci jëm boppam ak jiil bi di dund ci jamono ji sunu borom namm na ci ñoom yiwu rëy rëy rëy rëy waaye. bu dee bi mu nekkee njaareem moom day mel ne bu fekkee daana ko yónni muy faral di génn yi daawul bari te itam bokkut ci liñ xam ñun bokkut ci liñ xam waaw bu ko defee itam nee na sëriñ bi daana ko jàngaloo njàngum xasida ci di ko yëkkati loolu bokk na ci li mu ko daan nee na daf ma ko daan jàngaloo ci ay waxtu rawat na léeg-léeg bu amee gan léeg-léeg bu bindee xasida gu bees nee na ma woon sax boo gisee lu ci mat a soppi maanaam nang na na nang ma ko yëgal nang ma ko yëgal nga xam ne nee na xam nga lu lu mat a soppi moom aw déggin la laaj sëriñ bi ci boppam du yàq ci genn anam waaye loo xam ne maanaam lu taalibe yi war a xam la xasida yi mu koy jàngaloo ci di ko yëkkatuloo ko yëkkatiloo ci jataay boo xam ne mbooloo nga fa li muy tekki mooy kon xasida googu bokk na ci war a génn te kon taalibe yi war nañoo day mel ne war nañoo xam li mu ciy wax lu mu doon léegi te bu ko xasee weesu de mel ne kon bu ko xamut ñam jëmit duñ ko xam léegi bu egsee ci loo xam ne gis na ne fii lu ñu war a soppi la nee na da da koy baamu day baamu bayit wa waaw day day baamu bayit wa du ko wax ne ko fii na maanaam wares na ko soppi wala dara waaye day baamu bayit wa rek nee na daana ma jàngaloo fajar kii euh, xasida ci di ko yëkkati ci waxtuy fajar ndax yàlla dafa dogaloon ni sama mbind rafete noonu la sama baat neexe ba ñëpp daan ci yéemu noonu la ko bindalee boppam nee na am ci fajar goo xam ne bi mu sëlmalee ci jàkka ji damaa laaj nee na ñu ne ko téewut moom da téewut tey dafa mel ne yaramam daa am Eh, maanaam aw mettit daa daa daa xaw a waaw daa xaw a jagadi bi mu àgg ay maanaam ay lawraa maanaam ay lawraatam rek nee daa daal ne bëreet jóg jëm ci fi féeteeg sama kër xam nga këram nee na mi ngi woon ci ginnaaw kër sëñ bi kees gi nga xam ne nag am na bunt bu fa génne jëm këram foofu la jawali ñëwee ba tolloog bunt këram jàkkaarloog moom la wax ne nañ ko woo ñu yónnee woolu ko xissa bi bari na ay nett li waaye li lim bind lañu ñu nett nee na bi ñu ko woowee mu daal di génn naka la génn si maanaam daal di jàkkaarloog moom maanaam eh, li muy yëg mayetu ko muy dox wuti ko waaye mu ñukk wuti ko nee na sëñ bi daal di muuñ nee na ne ma ah ndax nii nga may dikkee nii nga may dikkee daal ne ma ma yaakaar ne ma ñëwee damay fekk doo man dara mu def ci benn temps taaliq wane ne eh, boo seetloo maanaam tarbiya ak zahir mu ngi mu ngi foofu waaye tarbiya ak baatin itam mi ngi ci daal di ne tarbiya ak zahir si mooy mi ngi yëkkati sama yitte di ko kaweel mu ngi may xamal ne benn maanaam kenn koo xam ne am nga dara ci man ci sa yaram wala ngay ànd ak sam xel waroo wutee jàkka sax boo dëggee mu woote loolu mooy tarbiya ak zahir si tarbiya baatin gi maanaam jóg gi mu jóg di ma seet si ak man ni ma ñàkkee solo moom ni mu toll sama jëmm rek yëkkati ko loolu it ba tey dégg nga eh, tarbiya ak baatin la loolu ba tey bokk na ci li nga xam ne maanaam leeral na ko foofu mu wax ne itam euh, dafa am bis mu yónnee woolu ko nee na ma daal di ñëw nee na bi ma ñëwee it ni ma ñëwee bokkut ak ni ma baaxoo ñëwee ci kër gi noon rek la noonu rek la ko la ko waxee bi ma ñëwee maa ngi fekk mbooloo mu bari toog di ko xaar génn gut man ma toog dégg nga di ko xaar biñ toogee léeg ñu dégg mu yëngu ci biir yëngu xumb ban foog ne day ñëw te fekk ñëwut fekk yëngu gi xëy na am na lu mu ci jublu wala am na lu mu jublu wax waaye taxut ñu xam lu mu doon ñu jekki-jekki rek dégg kàddoom mu ne insarifu sudurul axraari quburul asraar dellu leen ndax bàmmeeli gor yi ñooy maanaam maanaam euh, dënni ba euh, kii gor yi dënni gor yi ñooy bàmmeeli secret yi dënni gor yi ñooy bàmmeeli secret yi nee na mbooloo mépp daal tasaaroo ma jóg ànd ak way dellu ñu di dellu waaye maa ngi ànd ak njàqare ànd ak jaaxle ak tiis ndax kon xëy na am na lu mu xam ci kàddu yooyu sëñ bi wax am na it lu déggee ci yëngu yam doon yëngu njëkk njëkk muy wax kàddu yooyu ba ma àggee sama xel bàyyiwu ma ma daal di yóot sama xalima nee na daal di bind ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci sudurul axraar yi asraar moom la jël xarafu ci ne mu tënk ci aw bayit nee na ñaari bayit yi ci njëkk la ca wax ne salaahu kullika maa al islaahi qad xamaya xibbaka an talaahi daruka an zawil mafasidil fasaad qaada ba xobba di fasaad yow cheikhul xadim yéwén gu sa lépp yéwén ànd ak di di maanaam di yéwénale moo ma aar man mii di sab soppe ba munuma yàqu jañ gi nga xam ne yaa ngi jañ yaa ngi koy jañ ñi yàqu ak ak maanaam yàqu-yàqu yi jañ gi nga koy jañ dégg nga moo woomat ba indil la cofeeluk ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq moo moo moo la woomatal daal cofeeluk nit ñu baax ñëpp rek ci gàttal nee na bi xasida gi àggee ma jox ko ko naka laa dellu sama kër rek tawat daal di may daal di may song tawat ju metti ma tëdd ko ay fan bi ma xawee féex ma jóg dem dajawaat ak moom naka laa ko jox loxo rek mu ne ma Mouhamadul Amin sa tawat ja day sa xasida ga rek moo ko waral nee na ma daal di sant yàlla lool sama yaqin itam daal di daal di daal di gën a dolli ko ci moom. mu nett li ci yu bari nee na am na bis muy jàngale mawaahibul quddus di ko tëralal di ko tëralal jenn jëmm fekk booba ndeke sëriñ bi mi ngi leen di dégg tàppaat bi rek moo dox seen diggante. naka laa àggal ne nee na ma boobu maa ngi koy jàngal muqaddima bi ñu tàmbalee ilam xabaaka llaahu rusdan wa saa kaana ilahuna wala shay'a maa muqaddima boobu nee moom laa ko tëralal ba mu jeex naka laa ko tëralal ba mu jeex rek dégg kàddu sëñ bi mu ne Muhammadul Amin xanaa xamoo ne muqaddima boobu mii bokk ci tontul munkar ak nakiir ci bàmmeel nee loolu ba tey bokk na ci li nga xam ne jëlee na ko sëriñ bi sëñ Abdou Salaam Jenn mu Cheikh Issa Jenn ak soxna Musli moom itam Cheikh Mamadou Lamine jàngal na ko nee na moo ko nettali boppam moo ko nettali boppam ma tey loolu it ba tey bokk na ci li nga xam ne leeral na ko ci diggam ak moom mu leeral wax ne itam maanaam euh, maanaam euh, am na bis mu toog ci bindukaay maanaam ci bindukaay bi fi nga xam ne fi maanaam fi lay binde mook ay moroomam nee na ba yàgg mu daal di def aw xiin boole ci ngelaw nee na ba yàgg xiinu ñuul kukk ngelaw li ñuul kukk ba mu lëndëm ba ñi toog kenn mënatut a gis sa moroom xam nga rek boroom xam-xam moom inna fi zalika la ayatin li ulil absar lépp lu mu gis rek faw da da ciy da ciy jàngat da ciy da ciy da ay jàngat lëndamaay boobu yóbbu ko ci lëndamaayu bàmmeel muy xalaat nag mbirum bàmmeel bu ca bu ca duggee daal ba ak ñaari malaay ma ñaari malaayka yu ragle yooyu ñëw di ko laaj lan la leen lan la leen di tontu xalaat ba xóot ba mu sadd aw bayit ci xelam rek nag jotu ko wax sax ci olaamiñam layta shaari maada yakunu jawaabi in ataani fii turbatil malakaani aka neexoon ma xam bu nu ma yooree ci bàmmeel ba dëddu ba ñaari malaayika yi ñëw di ma laaj lan laay tontu bi ma tollee foofu taw bi tàmbalee di soob soob di taw nes tuur rek nee ñu seen jenn jëmm muy xuus ci biir taw bi di daw génne fa sëñ ba nekk wut si ñu bi mu egsee daal ne sëñ bi soxla na kenn ci yéen na am kuy sëñ bi ci yéen nee na man sësuma woon ci bunt ba waaye ka sës si bunt ba moo moo maanaam moo am ñu wax ne sëñ ba Basiru sa jaaxa am na ñu wax ne moom la nee na ba ma àggee sëriñ bi yëkkati xasida gi mu tooy xépp nee na mu jox ma ko ne ma am boo demee nga ne fere yi kii mooy seen tontu ci maanaam ñaari malaayka yi laaj ci bàmmeel ma daal dawaat ñëw ma egsee rek di wax kàddu yooyu ma sëñ bi wax sëñ bi nee na xasida gii mooy suñ tontu ñaari malaayka yi laaj ci bàmmeel nee mu da nee na ma daal ne bëreet daal di koy këf di ko fóon ak di ko taf sama dënn xam ne ñett xamun waaye ñaar xam nañ nga xam ne loolu lu ko gën a yéeme amul lu ko gën a nekk xar baax it amul nga xam ne ci xelam rek la doon xalaat jotu ko wax sax ci aw làmmiñam te bokkut ak sëñ bi sax fu ñu nekk sëñ baa ngi ci biir kees ga mu yénnee ko xasida gi daal ko mooy min allawxil mahfuz moo tàmbalee ci min nii li man lahul wujud wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabalal xidam mu di loo xam ne lu doy ki man loo xam ne ba tey dox na ci diggam ak euh, sëriñ bi sëriñ bi itam euh, mu amoon ci moom wàccuwaay lool moo waral mag ñi daan ko waaye aminu sirri Cheikhul Xadim tur woowu sëñ Bachiru indi na ko ci minan minanul baax Xadim mag ñi itam daanañ ko wooye nga xam ne loolu ko sëñ mayoon ci boppam bokk na ci li tax ñu ñu ñu maanaam ñu ñu féetale ko tur woowu maanaam di ko wooye mu fonkoon ko lool ba sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu daana wax sama waajur ba tàyyi yow de doom nga ci kër gi ndax maag sa baay bokk baay ndax sa waajur sëñ tubaa dana ko woon maanaam yow maanaam sama borom xamal na ma ne maa la jur loolu am na yeneen riwaay yoo xam ne dana ko nee na nee dana ko yow yaay sama doomi xol mën naa muy ñaari jataay yu bokkut te it ma wax ji it boo ko seetloo da gis ne menn maanaa mi la menn maanaa mi la amut amut ak wuute lépp dox ci dox ci diggam ak sëñ bi xam naa kon yaakaar naa ginnaaw waxtu yaakaar naa li des du bari e, ci mujj gi bi nga xamee ne noppi naa gis sëñ bi xam nga moom yàlla dogal na yaakaar naa sax ñëw na sa biir laaj bi lim bind ci sëñ bi bind na lu bari ci moom téere bi ci gën a siiw mooy irwaa un nadim min azbihi bil xadim téere la boo xam ne siiw na lool te yaatu na lool ndax lim lim indi ci sëñ bi mënees naa wax ne mooy benn téere bi ñu koy fekk ndax minal bidaaya ila nihaaya bu fekkee sañ nañ koo waxee noonu nga ne àdduna sëñ bi aku aw askanam am njàngam ña ko doon jàngal maraaxil yim jaar yépp ba ni mu ñëwee ba ni mu wuyjee boroomam ci téere boobu rek mooy bi nga xam ne ci maanaam ca lañ koy fekk téere boobu nag diir bi mu ko liggéey moom mat na ñaar fukki at ndax amul sikki sàkk ci ne bi mu koy tàmbali sëñ baa ngi fi te ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal ci la noppee loolu na boo ko xiyaasee da gis ne lu mu néew néew ñaar fukki moom diire na ko benn téere boobu it lañ lañ xam ci yan jamono la ko liggéey waaw benn téere boobu rek lañ mën a xam ci yan jamono la ko liggéey waaye amul beneen téere boo xam ne xam nañ ci wan waxtu la ko liggéey wala yan jamono dégg nga alminaxul maskiya fil xawaarixil mbakkiya moom ci xarbaaxi sëriñ bi la jëm indi na ci lu tolloog fanweeri xarbaax ak lu topp dégg nga an nubzatul mubaaraka mooy téere bi nga doon laaj sànq téere la boo xam ne téere bu riis la bi mu feeñee it yàggut moo la gun ko maxtuut rek lañ ci am euh, dañ ko fekk ci kàggu yu mag ñi rek ay waraqaat yoo xam dañ koy copier di ko joxalante rek lañ ci gis yàlla na sunu borom dogal nag maanaam la ca des génn feeñ ndax lu amal njariñ yoon wi lay doon lu amal njariñ lu amal njariñ ñooñ xam-xam lay doon ndax bu feeñoon mooy gën a riis Cheikh na Nadim ndax ku gis fahrasa ba ak nam toftalee téere bi ci ay abwaat ak ay fusul da la bari na lu ñu aajowoo lool yàlla yàlla na sunu borom dogal mu daal di feeñ ak jàmm incha allah waaye leeral na ci lu bari lu yaatu am na siira boo xam ne taarixu binaa masjid bi Touba moom la moom la mooy taarixu jumaay Touba leeral na ci lu bari kilifa yi nga xam ne ñoom la sañ bi njëkk woo wax leen ko ci jataay ne leen bëgg naa maanaam ngeen dafa defal ma néegu bi yàlla fa Touba wax leen ci dig leen ci aw yiw wu maanaam bu bari leeral ci itam wax ne sama borom digal na ma ko te gërëm na ko yonent bi sallallahu alayhi digal na ma ko te gërëm na ko ñii nga xam ne ñoo fi ñoo yor doxalinu adduna bi ne ñoom itam joxe nañ ci ndigal ba tax na képp ku jéem a taxaw ngir jéem koo gàllankoor xasida yi dinañ rëq sa ndigg noonu la nubza eh, eh, taarixu binaa al masjid bi Tuuba loolu wax na ko foofu dégg nga muy téere bu yaatu leeral na jumaay Tuuba ji meetar yi ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi leeral na limu keno yi leeral na xóotaayu fondement bi moom daal leeral na ci lu ca mat a leeral rek indi na ko ci. am na beneen téere boo xam ne itam moom la ñuy wax xutbatu wam sasin moom téere la bu gàtt dégg nga boo xam ne ci mujjug sëriñ bi ak xutba bi mu mujj def ci mbooloo ak bi mu wàccee ab liggéey waajtaay wa ak niñ ko indee ci dëkkam bu tedd bi moom la cay leeral ak téere boo xam ne irnaul adim bi xabaaya awraadil xadim muy téere bi nga xam ne mooy jàngale wirdul maxuus nga xam ne fiqhul wirdi moom lay jàngale mbooleem tur yàlla ya ci nekk ak aayaat ya ci nekk lu ci nekk da ko décortiquer dégg nga indi li ci rot ci ay ahadis ak li ci borom xam-xam yi wax loolu lépp lu ci ne leeral na ko ci téere boobu juróom benn téere yooyu daal mooy yi nga xam ne moom lañ gis mu bind ko sëriñ bi bind ko ci yoon wi bu dee yeneen bindam yi ci des yëpp dégg ay marsiya lay doon ndax noonu noonu la marsiya yi ma maanaam noonu la marsiya itam mag ñi mag ñi bi bari na ñoo xam ne na leen ndax martial na sëñ muru Moustapha martial na eh, maam Cheikh Anta ak sëñ Afia martial na sëñ masamba martial na sëñ Bachirou martial na soxna Faat Tuuti martial boobu bi mu bi mu noppee nekk ab diiwaan sëñ Hamidou Lo mu sëñ Maxtaar Bintu Lo moom la ko joxoon ne ko fexeel ba mu tasaaroo te nga tuddee ko majmuatul marasi li asiyaaxi Touba nee na noonu la ko waxoon tur woowu la ko joxoon ne ko ne ko mu tuddee ko ko martial boobu it. dégg nga euh, ma ab diwaan la ak yeneen i mbindam yoo xam ne ay xasaayit la yoo xam ne da ci tawassul ci mbokkam yi mbokkoon di liggéeyal ci kër sëñ bi ak yu mel noonu loolu lépp ñëw na ci biir mbindam dégg nga kon xam naa bu fekkente ne euh, mën nañoo wàcc foofu kàddu gi rek incha allahu taala ñu wàcc foofu kàddu gi incha allah jox la kàddu gi suñu ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaw sëñ Cheikh naa xam naa mën na mën a gudd a bàyyeeguñ na léegi ndax. Eh, sëñ Mouhamed moom képp kuy waxtaan ci moom waxtaanam deesu ko cof ndax day day doo xam ni eh, dafa yitteel yoon wi jamono yi yitteel nit ñi ba tax na kon du mën a gàtte noonu <laughs> xam naa ni yi bari na waaye nag eh, dikkalaat ñu ci moom tuuti rek ci njaarim googu ndax njaarim bari na ay roq-roq yoo xam ni maam mën nañ see génnewaat ak bi bi comme noonu mu defee ci téere boobu mu bind ci euh, taarix euh, binaaw masjid bu Tuubaa ndax def na ko njaareem euh, bu bu bu jumaay njaareem ci ndax daa wëy nekk njaareem wala nekkaan na ci yeneen barab lu mel ni daaru naam daa mel ni daan nañ ko fa dégg ak it jamono yi sëñ bi nekkee ci nekk moom njaareem jiite gim daan jiite jumaay njaareem it yooyu yëpp it bëgg nañ nga dikkal ñu ndax daan na jiite ci kanamu sëñ bi wala euh, loolu ginnaaw sëñ bi la comme niñ ko niñ la ko kii rek waaw. ok jërëjëf euh, Cheikh Massamba waaw xam naa lu aju ci loo li nga njëkk wax fàtte maanaam euh, njaareem gi waaw njaareem gi. njaareem gi moom bari na ay mbir yu ci xew yoo xam ne maanaam yu baree bare bari la bu dee li nga mujj wax muy mbirum jiite ci jumaay njaareem ji moom ci ginnaawam la ginnaaw sañ bi la ndax moom euh, bi nga xamee ne sëriñ bi jógee na fi euh, diir bu gàtt la amaan njaareem daal di dem kayal kayal Cheikh Mamadou Bachir itam moo ko fa sancaloon waaye itam wax nañ ne euh, amul woon yéenay sax fa daa façon yéenee dem gore ab dëkk kenn ni ko mag ñu bari defee ngir nekk fa di fa jaamu yàlla ak la li nga xam ne moom la ko sëñ bi bàyyee batale ko bi nga xamee ne waaj na ba jekk ba ba war a fobu ngir dem ci la ndaw ñëw ne ko wuyul suñu Mourou Moustapha fekk booba xam nga jumaay njaareem ji moom euh, ginnaaw sëñ bi suñu aafiya moo fi daan jiite suñu aafiya Mbàkke di rakk ci maam si moo fa daan jiite jiite na fa ab diir ginnaawam suñu Mbàkke Kanni Buso di rakk suñu Mbàkke Buso ginnaawam nag dégg nga ci la fa sëñ Modou Lamine tàmbalee jiite suñu bi ndaw li ñëwee woolu ko mu dem wuyu ji ci la ci ci ci ci la ko sëñ sëñ Modou Moustapha ci boppam moo ko jox ndigalul muy jiite jumaa njaareem ji nga xam ne ñaar fukki at ak ñeent wax nañ ne mat na ko ci ginnaaw sëñ bi nga xam ne jiitewaat na ko maanaam jiite na ko ci jumaa njaareem ji ñaar fukki at ak ñeent euh, diir boobu itam waaw mooy li nga xam ne kon mooy sababus maanaam mu desoon njaareem ndax mag ñu bari xam nga bi sëñ bi jógee rek dañoo daal jóge njaareem bu ko defee nag taarixu jumaay Touba ji noonu mu ko berale ab téere xamuñ itam fu mu berale ab téere taarixu jumaay njaareem ji waaye waaye nag taarixu jumaay njaareem ji moom danga koy fekk ci biir Irwa leeral na ko ci biir Irwa maanaam bis bi nga xamee ne ci la ko rëdd ci tànku boppam bis bi mu tege xeer wi am na mag sax mu bokk ci ñi taxawoon ak moom mi ngi nett li nee na bis nee naa ko dama bëgg daal nga wax ma ban bis moo la gën a neex ci sëñ bi li nga dund moom yaatu na lool te bari na waaye daal bëgg nañ daal nga wax ñu ban bis moo la gën a neex sa diggante ak bi nee na mu ne ah, bokk na ca day bi muy teg xeeru jumaay njaareem manes na ne yoonu murit kenn desut ci kilifa yi waaye bi mu duggee ci fi muy tege xeer ne gees dane ana Muhammadul Amin daane loolu bokk na ci li ma gën a neex sama diggante moom ci ci ci ci bis yi nga xam ne am naa ko moom loolu ba tey bokk na ci li nga xam ne maanaam euh, leeral na ko mu di koo xam ne itam taqoo googu mu taqoo nag moom ci yar bi noonu la ko daan royee itam da maanaam daf ko daan roy moom daf ko daan roy te loolu boo seet boo boo ko xoolee da koy gis da nga koy gis ci biir ci maanaam ci ci biir mbindam mag ñi àndoon ak moom maanaam dañ koy wax dañ koy wax lu bari xam nga nit nag boo taqoo moom mu bëgg a def ci yow mbir ba noppi nga boole ci di ko roy faw tasir ba faw dana fes xam nga ci irwa bi muy leeral naaj yi xisab naaj yi boobu. ca tintu moxzin naar boobu nga xam ne moo jógoon ngir fexeel sëriñ bi ak fa mbiram mujj te sëriñ bi jéggal ko ak la ca xew lépp lu gudd la gis nga bi muy nett lii di wane ni ñëwaat na sëñ bi bu ñëwee taali bu taalibe yi ñoo koy njëkk a gis di ko bëgg a sonal am na ci yoon woo xam ne ca Mauritanie la nee sëñ bi daa génn di dox ci naaju tàng yi nga xam ne solut sax ay dàll naan bàyyi leen ko bàyyi bàyyi leen ko alaa tuhibbuna an yaxfirallahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jéggal ñu bàyyi ko mu dugg moom defal ko njëkk ubbil ko buntu gannaaw mu daal di mu daal dem bu nekkee njaareem it nee ñëwaat na fi naka la ko sëñ bi gis daan ko kooku du borom jaasi jaa mu ne ko déedéet da nga naan borom xamte la kay borom xel mu dem ma kay nee sëñ bi daal di ree daal di koy defalaat njekk bàyyi ko mu dem mu ne naara boobu nag ginnaaw bi ànd na maag lenn samay mbokki taalibe gis ko jànqeen Thiès mboolem ñi ma àndal man rek maa ci xam ne mooy naar ba ñëwoon ca Mauritanie doon fexeel sëriñ bi bu ma bu ma leen waxoon ne kii moo waaye su boobaa ay na xuluxu cheikhi ana ji koy sëriñ bi loolu kon day wane rek ne kon moo tax Ahmad Sëriñ Ahmad Dame Touré di ku ñëpp xam di borom téere bi tudd Zadul Muslim jàng ci Cheikh Mahamadul Amin lu bari bi ma demee ci moom di gëstu bi bi ma laajee ne ma loo bëgg xam ci moom dama ne ko ay jikkoom mu ne ma xuluquhu xuluqul xadim xuluquhu xuluqul xadim jikkoom mooy jikkoy Sëriñ Tuubaa mu jëlee ko rek kon ci xadis boobu sayyidatuna Aïcha naan kaana xuluquhul Qur'an yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikkoom jikkoom lépp la woon kon yaakaar naa bu fekkente ne laaj yi amu ci leen lu des ci yi nga doon wax sànq rek dañuy wàcce foofu kàddu gi rek incha allah taala Cheikh Massamba. asalaamaaleykum xanaa kay bu lu mel ay euh, woyam comme loolu nga béy yooyu nga nettali léegi nii moom la jëmee woon ci sëñ bi ndax daan na jëmale ay woy ci sëriñ bi daan ko ko euh, daan ko jox comme lu bokk waaw kay jërëjëf Cheikh Massamba waaw xam naa. Euh, maanaam tagg maanaam ñu gis ay waayam nag yoo xam da ci tagg sëriñ bi moom mel na ne taxut mu bari liñ ci jot a gis daal mooy marché boobu nga xam ne ñëw na ci irwa moo tàmbalee ci mada cheikhu lil mawla allazi kaana yaabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yaraa min ridallahi maqtadat awamiruhu mislul manahi wa yumhidu lu tolloog juróom-ñeenti bayit la leeral na ci lu bari ci eh, jikkoy sëriñ bi ak melokaanam ni nekke woon di kenol diine ci àdduna ni mu nekkee woon daan digle lu baax di tere aw ñaawteef te daawul tee te daawul teengal ci diine ji ni mu nekkee woon di naataange ci mbooleem ñi nga xam ne rek ñooy way ñàkk ñi ni mu nekkee woon di bàyyub jirim ñi ak nim nim nim nim nim nim nim yare ak njabootam ci lislaam yare leen ci diine toqante leen ba ñëpp di ay aarif billahi te ñoom ñëpp itam ñu daan sàmm ci moom aqi waajur loolu lépp leeral na ko ci biir dem ba ca mujj ga mu ne ala innahu in gaaba naa bi jismihi fa ma gaaba anna xayruhu lmutajaddidu bu fekkee yàlla dogal na mu fàddu suñuy bët ba gisatuñ ko aw yiwam ak barke moom du des di yees ci nun ba faaw rek loolu ba tey bokk na ci li nga xam ne wax na ko waaye euh, yeneen xasida yi gis moom ay mbokkam maanaam ñi mbokk doon doon liggéey ci kër gi ci kër gi la ci way di tawassul ci seen daraja waaw di waaw wax kay mi nga boobu ñu bindoon ci weeru koor ak ñi xam ne ñoo doon liggéey ci kër gi rek ñi doon liggéey ci kër gi waaw ñu ci nekk ñooñu maanaam way na leen waaye itam daañu fekk ak xasida goo xam ne ci wolof la ko bind moo genn xasida googu rek lañ ma sa gis nag goo xam ne ci wolof la ko bind loolu mooy bi suñu mënu Moustapha di takk xeeru jumaa ji am na ñu ne suñu mënu Moustapha moo ko jox ndigal am ñu ne moo moo moo moo ko def ci coobareel boppam waaye bari woon na taalibe yu ko mokkaloon ci jamono yooyu daan ko jàng di ko wayantoo ci jamono yi ñuy liggéey jumaa ji moo tàmbalee ci déglu leen ma ma laabire leen déglu leen ma ma ma ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lëf li day waame waw du nga leen seex bu woote na tey wuyu leen ci jumaa ju góor gu baax teele leen Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci kat ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen gaa yi leen foble leen Moustapha leen Moustapha li mu fob foble leen eh, ñene woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñeena leen ba àgg ci naan bu ñu noon nommu tey xàll wii mu joxoñ réew mi jog eh, eh, maanaam réew mi jag nommu leen bu ñu maasee wulit ku ko def yow sa mbir mépp jóg yow sa mbir dem ba ci biir muy wax ne lore ak dox di reetaanu gaa yi ak di xeebante seex santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen ba yéen jàng leen dégg nga di wane ne yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir di fexe jiitukat jàdd yoon xasida ko gudd la yaakaar naa mat na ñaar fukki bayit ak juróom-ñett la ba ba tey loolu it bokk na ci li nga xam ne fekk nañ ko ci biir mbindam kon seex ma sàmba asalaamaaleykum waaleykum salaam wa wa barakaatuhu ah jërëjëf sëriñ Seexuna waxtaan wi am na solo lool macha allah liñ bëggoon a xam ci sëriñ Mouhamadou Lamine ci ëpp de wax dëgg fa yàlla lii muy waxtu wi gàtt gàtt tënk nga ko tënkin woo xam ne nii yaakaar naa ku ko dégg rek dana xam mm, ci dana ci xam lu bari loo xam ne nii dana ko mën a yóbbuloo dana ko jariñ a ñoo ngi leen di santaat di den fàttali ñoo ngi àndoon ak sëriñ Seexuna Diop moom sëriñ Habibou Diop moom sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom lañ seqaloon waxtaan wi fii ci As-Samadiyya ñu ngi leen di xamal ni tey jataay bi kon ñoo ngi koy yëkkatee foofu di nuyuwaat mbokk yi nga xam ni ñu ngi doon teewlu jotaay bi di ko ànd ak ñun euh, di santaat bu baax nag sëriñ bi di santaat sëriñ Abdou Samad di ñaanal ak euh, ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi te teg ko ci loxol sëriñ ak ñi ko àndal ñëpp rek ñoo ngi leen di. ñaanal yàlla dëgëral leen ba yeggale ko fu kawe njortu naa ñu indi ñëw tuuti rek ci euh, jamono ji nga xam ne ni dañoo nekk ci euh, mbir moom yi nga xam ni day ngañaay ak ndam lu rëy loo xam ni waa daara moo ko am alxuraan moo ko am Touba am ko mën nga ni Afrique am ko Sénégal am ko rawatina Touba kon lépp ak sant yàlla la xam naa sax ñu ngi waajal bis boo xam ne nii danañ ci euh, waxtaan waxtu waxtaan danañ ci def lu yaatu loo xam ni waa daara comme ni ko sëñ bi digale sëriñ sax mi koy wax léegi waaye njagam dañoo toll ci jamonoom moo tax ñu ne nañ santaat euh, nañ nañ nañ ci feeñal ak ak ak ak ak sant mm, soxna soosu nga xam ni loolu ci moom la ko sunu borom jaarale ak ñi mu ci liggéey boobu ba yàlla may ko ci ndam loolu muy ndam lu rëy xam ni ndamul alxuraan ndamul daara bu mu nee Afrique ni Sénégal rawatina tuuba kon day mel ni fi mu ñëw daa ñibbi rek waaw ndax nit moom boo mbir boo ko dàqee fa jëm fa dëkk rek lay jëm te alxuraan Touba dëkk <laughs> man la kanil xuraanu tamlikan yadum li mu ci wax bari na. kon eh, ñu mu doon ab soññ ci mm, sëñ daare yi ak donga daare yi ak nga xam ni yoon waa ngi noonu ñu ñaan yàlla gën ñoo dimbale ba eh, liggéey boobu nga xam ni sëriñ bi bàyyi na ko fi ci alxuraan mu mu mu mu gën a yëkkati ko ci sunuy loxo te dara bañ cee ba ñu bañ a bokk ci fa xalafa min baadim xalfun daawu salaata wa tabaau shahawaat ah, yàlla lépp di gën a ko loolu it sëñ seexu naa xam naa dañ foofu la ñuy tëjee jataay bi waaye wit nga indi ci say kii tuuti rek bu ko defee ñu daal di mën a kii incha allah. ok jërëjëf Cheikh li nga mujjantale lu ama am solo la te itam actualité la di soxna soosu nga xam ne dafa génnoon ci turu daara dem ci barab boo xam ne àdduna bépp ñoo fay daje ngir joŋante ngir wut ndam ci alxuraanul karim te loolu rek mooy li am solo ndax wa fi zalika falee tanaafasil mutanaafisun loolu rek moo jara xëccoo loolu rek moo jara njëkkante itam muy soxna Ndate Cissé defe naa noonu la tudd eh, mu di ndamul lislaam ni nga ko waxee waaye di ndamul Sénégal waaye itam di ndamul yoonu murit eh, ndax eh, alxuraan moom dafa fe maanaam maanaam mel na ne ku wax ne daa fekk baax Sénégal yaakaar naa ne juumoo kàdd googu ëppul ci moom yaakaar na ne waaye itam ku wax ne itam. Euh, ndamul sëriñ bi la doo doo juum ndax ni ko ni ko junjee sànq rek sëriñ bi ci boppam ma wax ne sama borom maanaam mooma moom loo alxuraan ba mboolem ni nit di moome alalam sama borom moom loo na ma noonu alxuraan may na ma ko sarax na ma ko jox na ma ko hadiya faye na ma ko kon nag bu fekkente ne kenn ci njabootam daa jóge fii dem ñuy eh, xëccoo ndam ci alxuraan kenn ci ak njabootam jël ko loolu dañ naan laa xarwa waaye dañ koy ñaanal ak suñu borom sàmm ko def ko magum diine te ndam yi di gën di yokk rek ci barkeb Sëñ Tuuba ñu baña fokk ñu bañ bokk ci jiil bi ñuy wax ne jiil bi nga xam dañuy mujjee poussé bi mu réer yàlla nañ ci yàlla musal barkeb Cheikhul Xadim ba ndam yi di gën di yokk di gën di tegaloo rek fa mel na moom mel na mag mu baax moo xam dane ma euh, gudd fan day jar na di ñaan ngir ngir ngir maanaam ngir menn mbir te mooy fekkee ndami Sëñ Tuuba ndax dun bii de ko fi yàgg yàgg a gis kii man waaw fekk na mi siñ ci waay rek jar na di ñaan gudd fan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon mbokk yi xam naa ni jotaay bi foofu lañ koy yemale waaye kon eh, loolu muy firndeel rek démb lu mel noonu suñu Abdou Samad mi ngi koy wax ci sëriñ bi kataballahu tabaraka wa taala jooji eh, nasaraan yooyu nga xam ne ñoo ngi doon jàng xasiday sëriñ bi ca seen digg kër ya waaye ñuy soññ ñanga nga xam ne ni nag ñoo leen ci dugal te xam ne nag loolu mooy liggéey bi waaw loolu mooy liggéey bi waaw kon ñoo ngi yemale fii suñuy kàddu di santaat bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.